donc loolu moo nekkoon ñu doon leen indil ci yenn ci une yi nga xam ni moom lañ leen doon euh, dégtal euh, tey jii ci mercredi bi paase je pense que am na ci yenn journal yoo xam ni yenn journaux yi nga xamante ni bëgg nga àddu ci euh, une yi balaa ñuy dugg ci waxtaan bi présidentielle yi gën na ci fës ak surtout choix bi nga xamante ni ça paraît difficile en tout cas pour certains quotidiens ci Sonko muy ñett ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo présenté wu pour le moment nekk candidat. ci élection il y a également la déclaration euh, du président hier qui nous parle de cette polémique sur son bilan immatériel ndax dégg nañ ko lu bëri yoon je pense que ñi ngi wax waxu bilan immatériel bu Séné bu Sénégal ak bu régime bi mais démb njiitum réew mi nu mu waxee mooy ni il faut que ce débat euh, cesse man bu ma ko déggee en tout cas mooy wala bokk nañ leen woo ci débat bu bu am solo ci loolu ndax moom jàpp na ni euh, ñi ngi prêter euh, ñi ngi indi confusion jiixi jaaxa si bopp nit ñi te li gën a am solo mooy paix et sécurité jàmm ji mu nekk di liggéey bu Sénégal nekk ci jàmm donte mi ngi génn nee na du bàyyi benn yoon ñu fi installé kawu noo gisee déjà cette euh, déclaration du chef de l'État je je pense que. peut-être ñun suñu dégg-dégg soit entre le président de la République Macky ak ñun waa Sénégal wala ma bañ a wax ñun waa Sénégal parce que saa yu ma ko waxee ñu ne ma yow doo Sénégal léegi ma wax man sénégalais. am naa droit. Mm. moi le sénégalais j'ai un problème ak ces différentes sorties du président de la République man mi nga xam ni wax dëgg yàlla am naa devoir ci président bi am naa droit ci moom moom am na devoir ci man am na droit ci man mais Astou ñun ci jàmm la ñuy dox ñun ñun waa Sénégal ñun amuñu problème c'est-à-dire ça fait ça fait une fois qu'on entend le président dire sécurité problème comme si mais qui est en danger ici les familles yi nga xam ne ñoo nekk ñoom la ñu jàpp seen doom yi tëj leen prison ñooñu ñoo nekk en danger ñooñu ñooy souffrir un garçon mécanicien takk takkul sax brassard Pastef parce que brassard passif yooyu ñu doon interdire à gauche à droite maykul sens amul sens y a aucune loi qui l'interdit mais quand tu quelqu'un xale benn mécanicien y tellement de témoins et de témoignages brassard vert jaune la takk manifestation am na dàq ngeen ay manifestants gis booy bi sol tenue manifestant tenue astafurlah mécanicien parce que dafa sol tenue mécanisien parce que il est sujet à être tilim soi-disant ngeen jàpp dóor tel tel yóbbu tëj le garçon on le libère a pas longtemps on me dit son grand frère ma di gis nga de diñ ko def tëj nañ ko des mois après voilà bàyyiwaat nañ ko nii tranquille sans être jugé mais quand alors qu'il y a des cas N cest dire que quand les gens parlent de détenus politiques et cetera mais les gens parlent de ça nom de Dieu et on veut que président Macky Sall à la limite mu comprendre loolu c'est-à-dire moi le Sénégalais si mon président ne peut pas problème damay tiit sax et quand j'entends ça dafa mel ni président euh, bi nekk non on a on a l'impression que dafa nekk Melbourne ñun ñu nekk Thiaroye que moom apparemment il sait pas ce qui se passe soit il sait pas ce qui se passe. est-ce que sa conception euh, peut-être ak euh, ni ko ñenn ñi sa conception d'un prisonnier politique. moo bokkul ak ñu ko ñenn ñi amee parce que démb bu ñu ko déggee moom il a été vraiment ferme sur cette question il n'y a pas de prisonnier politique loolu la wax Sénégal amul benn prisonnier politique donc est-ce que du conception yi moo différent wala xëy na euh, dégg-dégg beeg euh, ni ñu jàppee ni ñuy mën a définir prisonnier politique bon xam nga aussi comme dañu nekk ci àdduna boo xam ni chaque est libre de dire sa pensée nous respectons la pensée du président mais nous avons la nôtre moo di ne sawaay ka jàpp nit te tegoo ko fenn parce que dafa doon manifester prisonnier politique la noonu la jë dañu waxante dëgg nag astu nit koo xam ni da doon nga jàpp ko tëj détention provisoire waxoo ko ABC mu nekk fa nekk ci kaaf seen waa kër di jaabante avocat yi di jaabante nga ne du prisonnier politique lan la détenu boo xam ni ba tey ba sànq mënoo ko wax ne que lii nga def je vais prendre un autre cas. Mm-hmm. y' a aucune personne dans ce pays qui diir nous dire ne Oustaz Oustaz Assane li mu def nii waaw lii yoon la ñu jàpp ko amul c' est de l' abi moo fi am jaay doole nit ñi kese sénégal yi nag nekk un peuple bu mun a muñ baax lool yaru lool tabe lool yéwén lool ragal yàlla lool gëm ko lool bëgg ko lool fonk ko lool wóol ko lool di doxee nag pas-pas ak fulla yàlla nattoo ñu ay dirigeants yoo xam ne dañuy ñëw bala ñoo falu dañuy gentil ak ñun. baax ba dee yaru ba dee kaa si gis guux laa def ba faloo taxaw nag tiim nu nag di nu jaay doole loolu mënut a wéy le Sénégal à besoin de personnes consciencieusement soucieuses de l'avenir de chaque Sénégalais baa jiitee réew da ngaa jabootee mais du question da ngay toog du kër quoi du chambre du du mbedd du bopp koñ du quartier askan la c'est 17 à 18 millions de Sénégalais bu sabee l'entière responsabilité oui monsieur le président il a raison quand il du setaan ñuy ñuy jaxase dëkk bi ak wax dëgg barke bàyyi lay alayi xalifa Ababacar ak Alaaji Fall ak maam Baye président dëgg rek nga wax mais noonu moom mu amee taxawaay ba ne moom du setaan ñuy salfaañe dëkk bi man ak yow ak keneen ak keneen sénégalais yépp noonu la ñu amee fulla ak fayda nag ak pas-pasu kenn du taal suñu réew kenn du ko jaxase kenn du fi dox wax yëfi waaba jiiba te ñun ñu ngi dox ci jàmm amuñu problème la preuve il y a eu tellement de mauvaises choses qui se sont passées les Sénégalais sont restés stoïques et dignes ne tekk daal ne amul problème ba ñu yegg ca carte yi on est à 35 jours ou 34 voire 33 jours à une trentaine de jours d'une élection mmh. pour un président qui part aujourd'hui li ñu war a wax xam nga la mu doon de toute façon l'élection se passera bien les choses se passeront bien nous avons eu à faire ce que nous avons pu basta jeex na mais pourquoi aujourd'hui tenir un discours boo xam ne ñun man bu maa déglu président dafa damay dama naan mais attends y a un problème c'est comme si on cherche à créer un problème alors qu'il n'y en a plus il y en a tellement eu que on en a tellement subi qu'aujourd'hui on se dit ok on va amul problème ba ñu yegg ci kàtt ya jàmm ak salaam élection bu war a am nga war a def ñaari révision constitutionnelle yu normal de trois mois chacune bu mujj bi qu'est-ce qu'on au mu nekk trois mois délibérément ce pouvoir taxaw def ko un mois. Hmm. un mois boo xam ni bu la neexee nga ne da ngay dindi vendredi ak samedi baa ko dindee il va te rester combien de jours 22 sur les vingt 22 jours d'un mois nga jël ci nga dindi ci dañuy liggéey heure bi ba heure bi donc jàppal ne 22 jours yi divisé waat ko par 2 mu jox la peut-être 11 11 jours de révision constitutionnelle ñu pare ne 300 000 Sénégalais alors que chaque Sénégalais a le droit toog këram via la poste. si la poste n'a pas été aussi décimée sous le régime du président Macky la poste à terre alors que cette poste devait nous permettre aujourd'hui chaque sénégalais nga jot sa carte de vote sa kër poste indil la ko nga jot ko la poste travaillerait sénégalais yi jot seen ay carte ñëpp voté mais qu'est-ce qu'on a vu de 60 à maintenant les régimes se sont arrangés pour qu'il y ait le moins de votants possible pour rester au pouvoir mais loolu la ñu sonn président aussi mu xool réalité bi bu mu xool li ko nit ñi di wax ñi ko wër bu dee dañ ko wax ñoom ñu ngi kaa jumloo su dee moom la nag ci boppam itam mu ngi jum. ces derniers discours parce que euh, on en parle beaucoup quand même dernièrement euh, ces dernières euh, gis nañ ni président bu génnee euh, c'est euh, ay sorties yu très controversées en tout cas la ñuy gis werente bi de gauche à droite il y récemment li nga xam ne mu ngi ko doon wax ak presse bi seen nekkin seen taxawaay surtout ñi nga xam ne ñooy def revue des titres démb aussi dégg nañ ko il a vraiment haussé le temps sur ñi nga xam ne ñoom ñooy critiquer son bilan surtout bilan immatériel et tout ça. Euh, sorti au président de la République dernièrement est-ce que am na ci lu lu extraordinaire comme ni ko euh, ñenn ñi euh, gisee. selon vous bien sûr mais Astou xam on a tellement de d'estime et de respect à l'endroit d'abord et humainement de la personne du président Macky Sall qui a eu un parcours colossal jusqu'ici ensuite de l'institution qu'il représente mais saa waay nit la ñu nag te ñun mënunoo fenn